ñëpp di ziar ñëpp di leen xamal ni tay ji ñoo ngi ci théâtre national Daniel Sorano tay ji ñu ñëwoon fi nak waroon fe amal besuk cant bésu Zikrulaah ànd ko ak kat bu mag bi di Pamas Andu aussi tamit ak sen chaîne bi nga xamantene moy sen chaîne préférée di deuxième prod ñu fas euh sante suñu borom ak ay sikar ah, mu doon nak première édition euh, zikar bobu ñu fas yéene ko ànd ak yéen ba mu jeex incha allahu rabbi bu soobee yàlla tey jii dalu du leen ci rëcc. comme ni ma leen ko waxee sànq rek balaa ñuy dugg ci saal bi nga xamante ne spectacle bi foofu lay xewee ñu am rek ñenn ñu fi jukki laaj leen seen i xalaat. waaw kenn ngi nii sëñ bi nanga def. waaw ñu baax. yaa ngi yaa ngi si deuxième prod euh, ñu bëggoon xam tey jii sa teewaay ci bés bi lu ko waral. waaw ñun de euh, dara jiitaluñu rek lu dul fu Baay Faal yëngoo rek. xam nga rek dañuy bàyyi suñu yitee daal di ñëw ndax parce que ñun Baye Fall gi la ñuy dund lu ñu am lu ne Baye Fall bee ñu ko gënal amaana sax bu leneen woote woon rek te Baye Fall gi woote ñun dañu naan dem yi ndax ñun euh, Baye Fall ñuy dund te dafa yàgg nekk suñu deret moo tey ku ñu ñëwal nii tey dafa sori si ñun dafa am lu mu doon si loo xam tey dañ ko dundandoo enfance defandoo lépp kon moom bu xewlee rek lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ñëw dooleel ko ñëw jàppale ko si looloo wara tey suñu teewaay ànd ak suñu gaay yëpp daal di ñëw quoi ci bis bi looloo waral suñu teewaay tey ci bis bi Baye Fall nit mun nga ko jàpp ne ku soli sagar sol euh, takk ay njañ sol ay njaxas nga yaakaar ne ba non Baye ci xol lay nekk mun nga sol say kos sol sa blazer xeeñ sa parfum bu neex tax Baye Fall bi yaa ngi ko dund sa biir xol dama bëgg nit ñoo xam ne Baye Fall du ci ay njaxas du ci ay njañ du ci ay mbaxane du ci ay tëgg du ci ay loolu Baye Fall ci xol nga koy dund c'est boo ko bëggee lu du ay maanaam du ay euh, ci ay njaxas lañuy xam ne yow Baye Fall ci ay njañ wala ci ay ndomba baat wala ci affaire Baye Fall da nga war a civiliser noble la c'est vrai li ma naan Baye Fall noble la ñun ay noble lañ ñun ay ñun ay noobu lañ kuñ gis dañoo war a solo rafet xam na ma mais pas nga mel yenn melekaanam ku romb naan kii est-ce que la wala kii est-ce que nii la Baye Fall di melekaanoo te pourtant maam Cheikh Ibra Fall nit ku selloon la loon suñu borom nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax Baye Fall noobul la gars yi ngeen bàyyi loolu xel bu baax waaw kii kii kii moom kii ñu ñëwul bis moom dafa doon loo xam ne daa sori ci ñun waaw te jii avant ñuy dund sax waaru Baye Fall bi sax ba dañoo doon demalante di diggalante nekkandoo enfance ci koñ bi defandoo lépp ñu yorandoo muy Pamaas xam la ma la dundandoo lu bëri maa ngi moom jaarandoo bu bëri doon ànd ak sama tons tey jii nii muy Ousmane Wagne tey à cause de tey su ma fi ñëwee teewal naa ko teewal naa fi ñeneen ak ñeneen tey bu ko fekkoon tey jii moom amaana kenn du ko njëkk ci bis bi ndax nu mu meloon ak kooku muy jëmu jooju sama nijaay tey yàlla def na nekk tey mi gamoo tey yàlla xam ne tey bu fi nekkoon bis bii tamit li na fi teewaay bu gën a kawee ñun tamit dañuy xool koo xam ne bi Pamaas day ñëw suñu kër fa lay lekkee fa lay comprendre ñun tamit seen kër fa lañ foowee defee fa lépp defandoo lépp ci koñ bi mu doon loo xam tamit lu rafet la kon jëmm jooju tey bu xewee lu mel nii tamit ñun mënuñu lu dul rek bàyyi suñu yittee bàyyi suñu lépp ñëw dooleel ko jàppale ko xam ne ku si nekk rek bisam la am te nit ku ne rek doo ko xeebal bésam te nit ku ne am na bés boo xam ne tamit dafay xaar waa koñom bu nga xaar koñom mooy ñu ñëwal ko teewal ko jàppale ko bisam mu bu geesoo xam ne nii nii kat waa koñom ñëwal nañ ko waa goxam ñëwal nañ ko loolu war na lépp luñ jàpp dañ ko bàyyi tëj suñuy place lu luñ ci mën ñu def ko ci comprendre nga ku ñu mën a woo xëcc ci bis bi xëcc ko pour jàppale pour bësam bi mu réussir loolu lañ ci jublu quoi. ba tey ñu ngi ci salle tent bi bu théâtre national Daniel Sorano defe naa ñu ngi dégg noonu ci ci ginnaaw noonu euh, manifestation bi tàmbali na Souleymane mu ngi noonu tàmbali na ñu toog fii ak euh, soxna si soxna Khady Ndiaye euh, moom ñu bëggoon ko laaj rek ci bés bi lu waral teewaayam tey ji ak euh, euh, nan la ko gisee. auzu billah bismillah inna waliyallah salaamaaleykum mbokk ay xarit yeeg am di jàmm yi di teewlu mbokk internet yëpp ñëw fii ci saraano fekk sa fi Souleymane di gayndek Maam Mor Jaara borom saam taal bi sëñ Mor Faal Bey di ko bëggee di ko tiitaroo nit ku ab baax ku yaatu. ku yaatal moo ñu fi andi tey ndax ku la safoo rek nga faale ko ñun dañuy def bés at mu jot day bàyyi lépp lu muy def ñëw ci bés bi ñu ngi koy ñaanal réussir total yu baree baree baree bare fekk ci te boo àggee ci biir di nga xam ne lépp dëgg la affaire bi borom saam la. ziar naa la bu baax Diorin man maa ngi tudd usmaan Seck ñëpp gën ma xam ci Noreyni sekk ñuy ay jaam jaamaatu ay jaam jaamaatu ay jaam jaamaatu. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yàlla boole ñoo ak Serigne Ousmane suñ trondoo moom mi nga xamante ni mooy producteur bisi ba mu koy def ba léegi ñu ànd koog moom te muy rafet lépp lu mu ciy def rek woo ma ne ma lu ci organisation kaw seen beeg ak wàllum kàddu yi yëpp yow sa loxo lañ ko bàyyee daanaka ñu ciy santaat bu baax ak di gërëm bu baax a baax a baax waaye nag di santaat it waa Dmprod ndax nag lii lu am solo la macha allah di ñaan yàlla suñu borom mu defal leen tawféex. bon ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moom moo waral bés bi. Eh, ni ma ko waxee woon sànq ci njalbeen ba muy premier édition euh, bésu Zikroullah bésu cant euh, defe naa ñëpp xam nañ ko mu nekk si karkat bu mag euh, ñëpp xam ko ñu koy wax Pape Mass Kara ñu bàyyi ko ak micro bi mu daal di présenté mu mu waxtaan ak ñun tuuti daal incha allah. waaw ah, jërëjëf ñoo ngi leen ziar bu baax a baax di rafetlu seen teewaay tey ci bés bi di wax jërëjëfe borom tubaa jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngalama Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw ñoo ngi santaat ñëpp daal di ko tàmbale ci ñi nga xam ne ñooy sunuy kilifa sunuy waajur di ci jaaree noonu sunu wasila Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ko defee noonu ci nga xam ne mooy suñu buntu ci moom muy Serigne Abdou Khoudoss Mbacké Kara ak magam Serigne Ahmad Mbacké mi nga xam ne maanaam taxawu nañu lool ci bés bi ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant mboolem kuréel yi nga xam ne tënku nañ ci jëwriñ yi fa ne ñu ngi jël nuyoo bi di ko a xam euh, maanaam euh, jëmmi bi lu ko waral waaw dañ ci jublu ngir sant sëriñ bi képp maam sant sëriñ bi daal lañ ci jublu ngir maanaam wane li nga xamante ni maam ñu ngi koy liggéeyal sëriñ bi te muy suñu natt muy zikrulaa li nga xamante ni sëriñ bi moom ci kàttanam may nañu ko ci ak néew ñu bëgg maanaam bégal ci mbokk taalibe yëpp waaye ànd sant sëriñ bi maam ngir liggéeyal sëriñ bi képp daal lañ ci jublu daal waaw moo tax ñu woote ko fii nii te santaat bu baax ci ci ci ñëpp daal ci wuy si beeg lépp maam am nañ ci te lool. am sant rek sant rek maam comme niñ ci jublu daal mooy li ci jiitu ñun wutuñu ci lenn ngërëmal sëriñ bi képp lañ ciy wut maam liggéeyal ci sëriñ bi képp moo ñu tax a jóg waaw. te nag ñu am suñu mbokk taalibe boo xamante ni Cheikh Ousmane lañ ko woowee xëy na moom it mu gis ñu ci ñu ciy yëngu maam mu gis ni mu am yéene wu ànd ceeg ñun proposé ñu ko ci ñu xool ci ay yoo xamante ni ba d'accord maam ànd ceeg suñuy kilifa waxtaan ceeg ñoom ba ñu d'accord ñu ànd liggéey ci ngir sant sëriñ bi ngir doxal liggéey sëriñ bi ngir maanaam yaatal tamit mbindum Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni yi muy bind ci sëriñ Touba nga xam ni maam moom daa jaayante dundam maam maam addunam yëpp jël benn métier def ko muy taggkatu Serigne Touba ni Serigne Touba daan taggee yàlla di ko taggee yonent bi ni ko Serigne Touba waxee genn wàllu at bi dina sant yàlla juróom benn weer yi des mu jox ko rasulilaay foofu la wëlbati ko teg fa Serigne Touba maam at meeg lépp mu jox ko Serigne Touba di xëy di bind ci moom bés bu ne waaw mbindam yooyu mu koy bind ci Serigne Touba nag ñu nit moom la ñu jël engagement di ko ko propager la à travers Zikrullah yi ñuy def loolu daal mooy sabab. boo la déggee bu baax da nga am yëg-yëg boo xamante ni moom nga bëgg a tey jii wan ko jaam yi loo xamante ni nii looy dund la waaw muy muy muy leeru suñu borom googu waa mu mel ni tey jii loolu nga bëgg a wane. waaw ñun loolu lañ bëgg a wone maanaam bëgg a wone màggum yàlla waaye wone ki nga xamante ni kenn gi nga xamante ni moom la rasulaay doon waaye wone ki nga xamante maam ber gi nga xam ne ko war a ber Serigne Touba maam màggam gi waaw léegi loolu nag ñu ngi koy defee ci keppaaru Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni di ko fas yéene wone maam jullit yeeg murit yeeg ñëpp wone leen ko ni nga xamante ne noonu lañ ko Cheikh Amadou Kara jàngalee mooy kennal Serigne Touba waaw moom lañ bëgg moom lañ bëgg a fësal daal euh, ñu gis tamit ne bés bi macha allah taaru na saal baa ngi nii fees na dell ba gis nga ci biti bi sax ñi nga xamante ni dugg ñu ñoo ngi noonu ci biti yi ah, ba tey nit ñaa ngi ñëw ba tey nit ñaa ngi ñëw mbégte boobu maanaam lool lum la def ci premier édition. waa loolu yëpp sëriñ bi la rek dañ koy sant sëriñ bi rek ndax maam moom moom moom moom moom la soob rek tey ñun ay jaam jaamaatam lañ dañuy nekk ci keppaaram rek di sabablu. waaw lépp nag ñu jël ko def ko addiyee sëriñ bi moo xam lu ñu ci mënta am rek dañ koy delluwaat sëriñ bi xam ni moom moo mën ñun mënuñu waaw moom mooy moom mooy lépp daal ñu ngi ko ciy santaat bu baax a baax baax a baax kon defe naa dégg nañu kàddu yi kaddu yëpp daal ñu ngi ko tënkee ci kaddu cant cant la woote te borom bés baa ngi moom lu mu wax ne cant kon donc ñu jël lépp tënkaat ko foofu def ko ci cant xanaa rek ñu bàyyi ko mu daal di dugg ci biir saal bi waajal waajal ndaxte xam naa ni léegi mu tàmbali ginnaaw spectacle bi ko tàmbali na xanaa su amee leneen lu mu ciy sànni rek waaw ak chaîne bi deuxième. waaw waaw di santaat rek di leen santaat yéen waa deuxième prod am di sant ki nga xamanteni moy ne ci bobbi moy Bruno ak yow mi jëwrin Papa Ndiaye wa ak Jamil ak ñom Lex ak gaay ci nekk ñep am fofu mom sunu kër la wa ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di santat Dal. di santat serigne bi di sant suñu mbokk di sant suñu dëkkandoo di sant ñep mbokk talib yeb gis nañ taxawu beek lepp wa ñu ngi santat dal ñu santat bu baaxa baax aouzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñi ngi santat sunu borom bur bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam, di yeesalaat sunu diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rasuul di ko jaarale sunu buntu ci mom muy jëm Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di ko ñaanal mu yagg fi lol ak wer di len nuyu bu baax tamit yeen wa deuxième Prod yeen yi nga xamni yeen mom tele bi di len ci jox waccu way di len nuyu di nuyu mbok talbi yi ak ñi ñuy seetaan ah, defe li waral suñu teway fi mom ñepp xam nañ ko moy ki nga xamanteni bi ni day tu tank di goné go am yar am teggin maskara nga xamantani bi ni day doomu banlieue waye tamit di dundu cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci digënté mak cheikh ahmadou karam bakke reyni ndax kat euh, ñewul solon sonal serigne bi masamba jambar la amna talibé amna yar amna teggin yalla xamna ne ku dégg sama baat sax xamni yaram bi dafa xaw sutante grip bi moma sonal fani yépp def ma soj waye dañ ne ko xamul nokoy def nam la defa tax waaw yar ak teggin gi mu nekkee kër sëriñ bi moo tax ma dagg sama yitte yëpp donte yaram wi sutante ne mënoon naa ne rek damaa xaw a jagadi du jar may teew waaye nag bu ñu teewee moom yaram ak tegginam moo nu ko may ñu gis tamit muy dund si laa te mu mën ko tamit day dund zikur laa te mën na ko tamit kon nag lim ni ko mënee ñu ngi ko ci ñaanal tawféex di ko ci ñaanal gudd fan ak weer xewal yu bari saxaadatu daayira ne macha allah jërëjëfati amin amin kon mbégte boobu niñ ko waxee sànq rek tey bésu cant la waaye mbégte bi maanaam law na ba fii macha allah ndax bu ñu gisee leeru Cheikh Ahmadou Kara nooree ñu gën koo xamee ci seen Ahma xel day gën a dal. waaw loolu tawféex la ndax gis ngeen bi ñuy nekkee suñu diggu émission ci la sëñ du Khoudous dugg si di rakk ci man te nag Massamba Cheikh Ahmadou Kara Mbacké mooy yaakaaram tey ak ëllëg waaye nag ci biir kër sëriñ bi Serigne Abdou Khoudous mooy buntam. sëñ Abdou Khoudous mooy wasilaam ci digganteem ak Cheikh Ahmadou Kara Noreyni kon ngeen xam ni man rek bu ma teewoon mu doy waaye gis ngeen ni teew naa sëñ Abdou Khoudous teew na waaw kon loolu day firnde ni moom yaram ak tegginam ak fi nga xamante ne bi nii féete nañu fa moo tax xeebaluñ ko bisam wax dëgg yàlla waaw te niñ fi niñ ko jàppee noonu lañu jàppee mbokk taalibe yëpp yu dëggal ñi mel ne moom ak ñi nga xamante ne bi nii bëgg nañ ñu teewal leen nañu góorgóorlu ba roy ci ay jikkoom xamni ne kat amna lo xamanteni mini boko beugé sa kër kilifa ya koy doxé ci yar ak téggin nak di santat bu baax ay wayjuram juram ndax peccum lire bu nexé ndey ndey jaar té ci ya Nako ay wayjuram juram formé ko bu baaxa baax mbax gogo ak yar gogo ak téggin gogo la indi kër sëriñ bi moo tax sonaluñu waaw kon nak loolu mom il fallait ñu sédé ko wax dëgg yalla di leen ñaanal yeen ñëpp nak di leen ñaanal jamm xamna ci kanam tuuti rek dinañ ag ci salle ba ngeen gis inshallah allah limu indi inshallah allah sëñ Abdou Khoudous moom it ñëw na di wasila euh, euh, Pam ñu gën koo xam ci Masamba di Pam Kara e, xel dal dal na xel dafa gën a dal. نابلة مؤمن متنبئ مؤمنة مسلمة jàkkaarloo nee na fu ma yendu mbaa maa fa naan dina di la sant di la tagg yaa jara bind du ma tàyyi du ma ne jàll nga ko kuréel ba ñëw ci yow nga gindi bi nga daan kennal te lu mu def bëgg nga yónneen nga daan bëggee te daan ko wéetal mu daan la sotti mayam te daan la kañitam bi bur bi ne malaaka yi ñu sant la la ci jinne yi topp ku ñëwaati sant la ñëwoon wir wir ak ñëwoon ca baafani ñëpp la daan tagg ak waa li gën a ramadan sa weeri bopp yi nga fonkay ramadan motax tax la balay xaj ma nga ma xaj xam na ma xam ci weer na ma waxaan ma ci sama bopu te bu mu ku ndànk ngi la jox ba bopp bi tëj yaay ba bu ci di bëgg ak guddi suba ak ngoon ku indi cheikh nga fay ko ci kun fayakun man sama cheikh bi ma bind boo ma fayee danaa mën a tiitaru te du ma ko fayee que yaayam ma ngi ni ci ak talibé la juddou ndax dama wax légui ci biir fi ni sotu juttam dogo bu fekk ci sotu Sidina Ousmane Sidina Ousmane jur Cheikh Modou Karam bakka mu jur seigne Abdou khodous pa Mass deblu ci mom warna ndax sa duttam dogo mo yóbbu sidina Ousmane kon pa Mass dafa fekk ndox ma wala nga ci kawam waye nak ak yaram ak tegginam ak jullitam ak talibem gan naño yokko indi kon limi wut yàlla nako am li mu ciy gëstu yal na ko yàlla may ci kàttanu yàlla te yàlla yàggal sa taxawaay. may sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di sant ñëpp nag ndax ñëpp jàpp nañ ci wax dëgg yàlla ay mbokkam ay am di jaamam ay xaritam ay sëriñam ñëpp jàpp nañ ci may ñaa koy ñaanal nag moom ci am dogo yàlla na ko yàlla defal sutura te yàlla na yokku ba yëg ko ndax bu demoon ci leneen lu wuuteeg lii jëmul ci yàlla ak yonent bi duma ci mën dara comme que nag ci lii la ko yàlla xiir maa ngi ko ci ñaanal rek barke nóoréy ni lu mu ci bëgg rek yàlla na ko yàlla defal ci barke yonent bi Pamaas nag moom doom ju baax la ku ko jur di nga ko boot ndax ku baax la mag yaayam ñoo bokk ndey ak baay ñu nekk ci kër ga te mosu jooyloo mag mosu jooyloo xale ñu koy ñaanal yoon bi mu jël yal na yal na ko yàlla defal jàmm ci yoon bi te mu dem bay indi ay disque d'or ci barke xaadimul xadim barke sëriñam Abdou Khoudous ñoo ñun dañoo kontaan rek mënuñoo wax ñu ngi gërëm waa Pikine yëpp nag. man la Ndeye Birame Thioune macha allah umpaañam laa jarbaatam laa. di ñaan yàlla nag bis bi yàlla na ko def ay ati ati at ci barke sëñ Fallou te bu ñëw dàq ba ca des macha allah kontaan nañ suñu xol sedd na lool wax dëgg yàlla gis nañ ci réussite totale macha allah. donc di wax ne aussi autorité Pikine yi nañ jàppale xale yi ndax ay ndaw bu ñu jugee bëgg nekk leader yëngatu ci wàllum di leadership dañ leen di jàppale ñu mën a taxaw nit sa gox rek fa nga mën a amee ñi nga xam ne ni ñoo lay taxawal. waa pikin def nañ une forte mobilisation daal di ñëw donc di ñaan bu baax a baax ñi nga xam ne ni ñoo jóge ci Pikine ñëw fekk si suñu tonton ndax nag gën a gën a gën a jege gën a yey moom suñu tonton la macha allah tey lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ñëw daal di jàppale ko ci bésam bi. maa ngi woo autorité Pikine yëpp ñu jàppale ko te xam ne xale la am na jom nangu naa liggéey te am na fula ci lu mu def. xanaa rek di wax ni ko soxna si waxee rek vive Pikine ginnaaw Pikine rek la ñu am kon donc vive Pikine ci kaw ci kanam. jërë ngeen jëf.